alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al huda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina wali wali laqil lisaani waxlulan min xulum xad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaan al xikam faliyahab bil mustafa xayra sham assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 te mu bari lool ci alquranul karim ak xadis yonent bi sallallahu alayhi wa ak njàngalem sëriñ bi mag ñi sëriñ bi yaroon it seenu melo ak seenu doxin ak seeni waxin lépp ci luy fàttali eh, jullit bi ëllëg la woon ci la gënoon a jëm am na bi sëriñ bu mag bi woote ci njaareem ba ñu bari wuy ko mu xaaj mbooloo ma ñeenti xaaj benn xaaj mu ne leen féetee leen ma penku benn xaaj bi féetee ko sow bi ci des féete ko ndeyjoor xaaj bi ci des féetee ko càmmoñ mu toog ca digg ba daal ne yenn waa penku ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñu de Mbàkke xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu ne yéen waa sow ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñun de Mbàkke xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu laaj ko waa ndeyjoor ñu wax loolu mu laaj waa càmmooñ ñu wax loolu mu ne yéen waa penku ngeen xamu leen lenn lu mën a fajub xiif lu lekk ñu ne ko déedéet mu laaj waa sowu ñu wax loola mu laaj waa ndeyjoor ak waa càmmoñ ñu wax loola mu ne man ahmadu mii de xawma lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk waaye nit nga xam ne nag xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk naka noonu itam amut lenn lu mën a faj mbëgulum bàmmeel lu dul jaamu yàlla ne leen man de yàlla dénk na ma mbalaanum sutura moo xam ne ni ku nekk ci àdduna mën nga cee sàngo waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp te loolu de moom da koo giñ ndax bu waxoon te giñut it ñu gëm waaye dafa giñ ne giñ naa ci yàlla ne amatu lenn luy jariñ jaam bi ëllëg bu wàccee ci bàmmeelam lu dul ak njub tallaahi laysa yanfaxu shaxsu xadaa indahu lu ramsihi xayrul xudaa daal di waxit ne àdduna ak àllaaxira dañoo wuute lool ndax àdduna koo bëgg a gis mën nga ko gis waaye àllaaxira njaraan bokk lu ñuy def rek ñooy gisante démb nag andi woon nañ lenn ci bayiti sëriñ bay jaxate tey ñu barkeelu ci bayiti sëriñ Moussa Ka yuy fàttalee ëllëg téeram ba mu tuddee naa jéem a buurati fàttali dee ak fàttali ëllëg rek moo ko tax a jóg lam ca wax ci yonante ya ak borom cër yu njëkk ya ak buur ya fañ jaaroon ak fa àdduna mujj ak ñoom téere bu rey la waaye dañ ci barkeelu rek ñu tàmbalee ko ca lam wax ne yónneen ya ak ñañu leen daa yónni ñëpp a ne mes loo ruq ruq barab day ñëw fa bis di la wër ndegam ña daa dox ci kaw ndox mee ka dem asamaaw di xëy di dox looy garab ndeem ñoom la suuf mujj war ndegam ña daa yokki dik kuy bëgg a faatu ñu faj ñoo xëy ne mes lu ñu fi def waaru jot na bu wér ndegam ña daa fetalante fettalanteeg noonu yàlla ba not ak gaa yi daa defi kàngam ñépp ñépp nga wor ak gaa yi dee faa jógal ñuy faj ku ràgg ku ne ba woppi dee ja ñëwee moo tee ñu farlu ba wér ndegam borom mbir yu toll nii ñëpp ñëpp a ne mes waajal te jóg sàkku ab yóbbal te jëf li la war lii doy na koy wax a wax lii doy na koy xam xam ndem xej yàlla yi ñoo dee man mi seen du ma der loo xej xej du tee dee ñëw fa bis di la wër te loo ko jag te loo ko berndeel loo xej xej du dee dee def sa gën di la wër te loo ko berndeel lu dul sa du génn sa kër loo xeej xeej ji du tee dee def sa gan di la wër te loo ko berndeel lu dul sag ruu du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay ji yàlla keroog mooy gën a métti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar bis buñ la day jangte jangte yóbbu suuli ba ñëw ba jooyee daal ñuy xëccoo alal ja ak la nga jur xarit ya fàtte la say doom dal di doon alal jigéen ñi tënj la sàkket yépp xëy na wesar yeneen weer ca kanam ak laf sa bokk yu ñëw garoo jabar ya te dootoo denc faw jabar sa doom yi jirim yu mag ya sa barab jigéen ñu ndaw ña di waaj tey seetu tey wuti far nga weete weet ne cundum yow rek loo jëfaloon dootoo ko am sa alal ji yóbbuloo ko fa far loo yóbbuloo boo demee lu jëf ji yiw du fa saf mu nakkarun wan wana kiirun ñooy taxaw di la xar seen bolde yaa gën a rëy ngir doomi aadama yi ak jinne yi bu ñu booloo woon yëngal gu du wér boo tontuwul lañu lay wax bolde dal ci sa kaw bàmmeel ba naj la ba jiit yaag jaan ya far na jasar bàmmeel ba xat ga mu xat ak tër ba jëm abada yaram wa ak lañ ci muuroon lépp def saxi wer lëndam ga ak sax ya ak wéetaay wu yàgg wa ak mbugale ak tiis yi jëm yowmal xiyaamati far nga sax ca loolee ba bis buñ ndekkalee ba taxaw bay joxe téere ya mbaa ñuy peese jëf ya di ber kon mbokk yi nañuy bàyyi xel wax yii nga xam ne nii buñ demee ci alquran fekk ko fa bu ñu demee ci sunna si yonent bi fekk ko fa bu ñu ci njàngalem Sëriñ Tuubaa fekk ko fa waaye bu ñu ci mbindum sëriñ Tuubaa yaroon it fekk mu fees dell ci seeni bind te ñoom ñi ñu ko doon fàttali ñoom ñëpp war nañ ñoo jox misaal ndax kenn nekkatu fi kon nañu bàyyi xel bu baax a baax yàlla nañu suñu borom sënk ci siraatal mustaqim ñoo ngi fàttali sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe bi yëpp liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ngir liggéeyalee ko sunu borom ngir fàggu dundub ëllëg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 in uridu illa al islaaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auzu billahi min alseytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim